asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV amati nañu mbégte ak contentement ni ak technicien bi may xamal ne li ñu dese ci temps bëriwul mm. ma bëggoon seex bi ñu waxtaan nag ci li nga xamante ni mooy jëm ci wàllu cat mm. da ngay gis ku sol mbubb sax mu xottee ko ñu cat la ku sol daal di dox ba mu yàgg nga fa xastaloo ñun la cat la Sénégal ñun li ñuy dégg cat cat cat dafa bëri ñu bëggoon ngi indi ñu ak génn ci wàllu cat Kamal ne kii di Khalifa Sall ta ko jàpp waaw munoo nekk maire Dakar am base politique am khalis. am xam-xam am lu nekk mais Khalifa dafa dafa maanaam yambar la daal loolu laa mën a wax parce que day toog rek non oh, affaire yooyu déedéet da ngay mel ni bat li muy jaar soo bëggee nekk Sénégal maanaam bul tooñ waaye nag da ngay yëngatu ñu xam ne yow bëggoo injustice mais ca ta ko jàpp mais président bu bu postulé woon candidat kon ngay xam ne Macky Sall am na problème dëgg mm. yaa ngi may dégg bu baax mm. Idrissa Seck <laughs> ca ta ko jàpp wallaay ca ko jàpp mm. li tax la ca ta ko jàpp mooy imaginer ñu dem ba veille élection ngay def ay déclaration fallacieuses yoo xam ne sur l'islam nga xam ne c'est la sacralité du monde kenn du ko laal loolu cat la cat googu nag moo taseewaat ci Idriss moo tax man ka am cat sa kaso ba sax muy Khalifa Sall ñëw na sax ànd ak moom lu mu koy jëlee. koo xam ne il est inapte. Mm-hmm. lu mu lay mën lu mu la mën a loolu ay bës la nii rek mais am na lu des. donc loolu lu jaram moytu la. Mm-hmm. cat boobu nag dafay topp nit topp nit yoonu salaa wax na ci xaddis ne bët dëgg la al aynu xaqun. Mm-hmm. wa lisaanu xaqun làmmiñ dëgg la. te cat boobu man li ma koy traité mooy nga sangu d'abord ci loo xam ne sirul atika la tudd nga xam ne boo ko sangoo fi nga toog da nga yëg ne li nga sangoo nii dindi na cat bi nekkoon si yow ba pare nag dinaa la protéger benn ndomb bu ndaw boo xam ne dama koy defal moo nekk nii juróobu moom benn benn mbakkan rek la ndomb gii mhm. moom ngay takk yàlla musal la si cet wa Illa, am naa benn téere boo xam ne ci boppu jësit lañ koy def mm-hmm. te man lépp lu may wax nit ñi rek dama koy def mu ngi nii xam nga booy wax ak client yi il faut nga wax leen lu wér mm-hmm. gis nga lii lii mm-hmm. lii de boo ko takkee maanaam ku yow nga wax jàmm ci yow waaye kenn mënul la dara nag te bëri na ku naan la nii ibaado gi yëpp ñoom ñëpp dañ koy takk waxuñ benn dëgg naa naa la ko wax donc na nga aar sa bopp na nga fexe ba nekk fi rek. te gëm yàlla jaamu yàlla. am solo. dëgg naa ni waxtaan bi xam naa ni jeexul leen dara fi dellusiwaat incha allah ay bis yi di ñëw comme ça boobu. ndax euh, ponk Idrissa Seck bëgg naa ñu yaatal ko ba mu yaatu. waaye euh, waxtaan bi instant bi li ñu tërale woon ci waxtu bi xanaa nga defal ñu ñaan rek boo def kontaan bu baax ci yéen ci set bi di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi te di wax politiciens yi na leen nañ changer discours campagne moom dañuy fo campagne mooy nga wax sa bilan wax sa programme waxtaan ak réew mi mm-hmm. man damay wax ne bu ko jaroon nañ dem ba meeting ba ñu def table ronde journaliste yi wër la ak mbooleem correspondant yi nekk ci région boobu ñu ñëw nga xam ne xam nañ réalité boobu mm-hmm. ñu ñëw laaj la ay question de développement lan nga xalaat ci infrastructure yi nekk fii ci dëkk bii mm-hmm. man dama wax ne journaliste yi nekk ci région bu nekk ñoo gën a xam région boobu mais pourquoi ngeen def table ronde foofu ci meeting bi ñoo ñu poser la ay question nga répondre nga waxtaan ak population dem ñi bi moo nga nekk fii di xuloo xeex bi yëpp ñàkk programme la ak ñàkk la wax yal na yàlla defal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah